suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg yi doon jar ko am. bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahmaani rahim maliki din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin anta rahimu samadu rahmanu almuminun muhayminul mananu ikfil bala wa jumlatil wabaay wasuhala lah da kula da'in laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mbokk yi ñu di nuyu di leen siyaara di leen dokkeel ci bis bi di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne tey moo waral bis bi muy sëriñ Biram Ba ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ñaanal nga yàgg ci kanam njaboot gi yàgg leen a teete te seen ab suñ borom gërëm ko ci saayir ak ci baatin te it loolu dañ koy ñaan waaye gëm nañ ne gërëm na ko ndax su ko gërëmu doon bis bii du am Garam garamu doon bis bi do am kon sa digganteeg sëriñ bi sab liggéey suñ borom garam nako na la wor ne sëriñ bi garam na la njabot ak sëriñ bi garam nañ la ñu ngi lay ñaanal yalla gudd fan ak wër ak jaamu gu yalla gërëm njabot gi nga jité yalla na nga tok ba nawtal ñom ñep dole allahu di len wax ne rek japp ngeen lo xamne ne sëriñ bi mom la daan wax ci dëkk ba waxtu wuñu sikaran ba gaw bu da fay wax ne yena fanan ci lu yalla gërëm kon nak su ngeen woote bis bi fi ci ngayen jël seen doole jël seen warsak jël seen temps ak ni temps lepp def ko ci ngir yàlla rekk na leen wóor ne e, ndam rek ngeen am ndam rek am ndax biig bi xale yi fanaanee ci baatub laa ilaha illallahu ba bër set bi ma dikkee dama leen ne de li sëriñ bi daan wax de rek laa leen di wax yéen a fanaan ci la yàlla gërëm waaye nag lu baax du doy lu bax du doy Sëriñ Tuubaa dafa wax ne isil muridu la yuridu abada xayru rahman ay soxasada ne na ki namu ci yalla fum tollu rek ne sak ngeermal yalla ba taxna tol bi nga xamne ne bi moko fakkon fàkkoon ko tolu serigne touba manelen fanan ngeen di wax di tuddu yalla di tuddu yalla bu set waye na ngeen xey yendu ji ca tol ba di liggey ba jant so wala mu pare nonu lañ ko defé ma tax bi sax dégg na ñu mel ñuy caneer di ma nëy si waaye fekk may nelaw mané nit dal nit rek la nit ni rek la ñu fexé bo wessu nit kon nak lañ leen di wax mod nañu gëna gor gorlu gëna japp batu la ilaha illallah. cheikh Musa neena na nim ñu ko waxe suñ ko jëfé noné fuñ ko démé rek am ndam ndax mom dé amna na ndam ba paré ñi andon nak momit démé ni sëriñ biram ba ndax ñom bañuy ñëw keba kebbe ibrahima Cissé biram ba mii ak ku ñuy wax Omar Daay ñoo ànd ñëw ci liggéey ba suñu xëyee ma dem nuyu sëriñ bi mu a dem leen barab sàngam léggéey nañ fa maanaam toj nañ fa àll ba toj fa àll boo xam ne sëriñ bi moomu ko waaye sëriñ moom moo leen sëriñ bi daan sant ñu toj ko ñeneen na ko moom te ñu ngi koy bay ba keroog bu leen sëriñ bi di yeewi kon nag alhamdulilah sëriñ bi de daf daan wax ne dañ ne wax ne seexal jeex na mu ne déedéet dañ wax ne lañ du seexalee réer na waaye jeex moom defu ko ndax lam ñu daan wax dara yàlla xajut fenn xemut fenn kenn moomu ko waxtu wu xam-xam tàbbee barke tàbbi rek seexal ñëw Waktu xam-xam tàbbee barke tabi séexal nyau ko defé nak kon eh kaddu yi du mën guddu ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp moolam ñi fi tew di wax ne de bis bi de feek ñu koy man insa allahu suñ ko suñ ñu ko yëgalee rek dinañ tew si ken togu ñepp nga ngi jëf kempe pop sara boko ko faaw rek ñu fay la ko mbaax ak safaan baa ci yem nag mbaax ak safaan baa ci yem kon nañ góor góorgóorlu ci xeeti mbaax ndax man damay wax toujours ne aarif de fu ma gis lu baax dafay yaakaar ne moo ko moom man de loolu laa def ci sama xol fu ma gis ku la def lu baax rek dama yaakaar ne man la koy defal xaj na jëmmi doomu aadama ja tax jotewuma fa kon nak nañu bokk gorlu ci lolu ñun talibé yi ñun talibé yi ndax kat ñu nit ay dong lañ yo xamne rek lu bax lañ bëgg def ñii nga xamne jitu jiitu nañ ñu yal nañ leen fekk ci kanam suñ borom ñu and ak seeni wasila ñi and ak seeni wasila ñu and ak seeni wasila mu yonent bi sallallahu taala alayhi teew ci kanam yàlla xam nga dañuy wax ne àjjana ñu ne àjjana de neex na waaw waaw neex na àjjana neex na waaye yaakaar naa ne dëkkaale yàlla ko dàq dëkkaale ak yàlla moo ko dàq kon yal nañ ak suñ borom ci sayir ak mom ci batim yar na yalla yok mbolo mi te barkeel ko serigne bi de li rek la bëggoon danaan wax ne da leen jappalante hande leen nek ben mbay sekk waxkat bi na ko xam ñepp la jepp fexe leen ba bu leen jéppee ante koo xam ne mi yépp leen jéppi bu ngeen fexe leen ba bu leen jéppante ànd leen nekk benn sëriñ bi nee na ñoo bokk menn meew ñoo bokk wenn wenn ñoo bokk menn balk kon la ca des nag mooy jàppalante rekk a ca des jàppalante rekk ci des benn bi ci daara ji am na ci ku ko wax wax bu metti bo xamne bim xey ci suba dafa tok ci buntu kër gi di ñaka ka mus góor gu ñoo xama touré moko fa fekk ko sëriñ bi tel nga xey tay di mu ne ko waaw lool dama am luma metti amat dama am luma metti lo xamne dafa melni ni ko def dafa futti bama set mu jël ay yar dama caw ngor gorlu te tegee ci yoon wi suñ tegee ci yoon wi fa góor ñi xàggoon danañ fa xegg woykat ba ne na góor ña duuñ ay jinne duuñ ay malaayika duuñ ay njuuma ay nit la ñu jaar ci yoon rek ba yegg fañ jëm loolu nañ ko bàyyi xel góor ña duuñ ay jinne duuñ ay malaayika duuñ ay njuuma ay nit lañ ñu xëy yegg jàpp ci jàpp rek ba yegg fañ yegg kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Biram jërëjëf Eh, yaak mbooloo mi nga àndal ak kilifa yi nga xam ne fekk si nañ la nii rekk la nii rekk la nii rekk la kon nag ñu ngi yemale kàddu ko foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf Cissé yàlla nga fi yàgg lool dana wax ni su ko xari doon jar dana ko am. seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.